connection. <laughs> Sous ma sagnon, femme d'affaires, la idole. No, no, no, no. Kokki banken, konte halis, gento halis. No, no, no, no. Suma ma farm the fair, la idole. No, no, no, no. Kokki banken, konte halis, gento halis. No, no, no, no, no. dañuy rafetluwaat kàddu yi dañuy rafetluwaat euh, euh, accueil bi parce que tey jii respecté ñu moo waral ñu ñëpp teew bu la neexoon yow kese mën nga ñu kii ak soxna Khadija moom sàll bi waaw mais lii day wone nañ dañ ñëw yëg parce que assistance bu mel nii defe naa ne yëg moo waral loolu kon nag pour bañ a guddal dañ lay wax ne la ñun ak yow euh, benn lañ à chaque fois comme ni ma ko waxee à chaque fois ñu sollicité la dañuy dañuy jox cër boobu kon nag ñun ñu ngi rafetlu sa taxawaay si ñun ñu ngi rafetlu sa sa sa sa simplicité ak ak ak ak li nga doonee doomu daara waaw gëm nañ ng mii sama rakk la doomu daara ci ci daara la juddoo man daara daara laa juddoo kon ñun ñoo bokk lii ngay ngay rafetalee noonu kon aussi amuñu lu dul euh, di rafetlu loolu parce que ñun fii la ñu am mooy suñu lépp ku ñu ko jàppal ñu jàpp la ku ñu ko bàyyi ñu ñu maslaa ak yow wala ñu bàyyi ñun loolu lañ kon nag ñun alhamdulilah rabbi alamin lañuy wax bi nga xam ne da ñu koo téyel te te man bi ma xamoon elbas bi ba peut-être gën nañ gisante mm. mais monsieur elbas bi ma xamoon ba léegi moom laa gis ba léegi mm. waaw kon nag euh, mënoon nañoo ñëw fii ñu defal ñu toppee ñu ñuy xaarloo wala yooyu mm-hmm. waaye boo ñëwee macha allah soxna Khadija da lay accueillir accueil bu macha allah mm-hmm. voilà nga jàppee ñu sa bopp mm-hmm. kon daal du def lu lu rafetlu kàddu yi ñu ngi dafa desee mën a expliqué bu mais ñu ngi ñu ngi rafetlu kàddu yi ñu ñi nga xamante ne ñoo fi toog ñëpp euh, comme ni ko Abdourahmane waxee di la ci juutal yow mi nga xamante ne yow yaay euh, monsieur El Bachir

ku xam NG Events xam ko ci euh, ay événementiel donc euh, waxoon nañ ko dinañ ko waxaat d'habitude suñu ay événement yàlla daf si teg loxo bu baax a baax euh, ba tax na lenn rek moom mooy objectif bi mooy que ni d'habitude du ñu faral di am ay événement di def ay ñaari parrain ñetti parrain yooyu parce que amul sens en plus ñun daray puukare taxu ñoo jóg ay ndaw lañu nekk ci li nga xamante ni moom mooy xeex bi jeunesse bi xeex ñu fa yéene ko ànd ak ñun parce que ku yàgg xam Thiès yàgg dégg nit ñu bàkkee muy nitu Thiès donc dañuy faral di wax ni Thiès euh, képp koo xamante ni jug nga sa dem du sori wala boog bu fekkee bëgg nga àgg fi nga jëm da ngay génn Thiès donc euh, bu ñu gisee koo xamante ni day taxaw di xeex loolu euh, ñun dañuy ànd ak yow te lépp loo xamante ni nii rek loo sumb la ñun bu ñu la mënee dooleel dañ koy def donc loolu moom moo tax ñu porte sunu choix ci yow parce que dëgg la suñu kilifa nga mais tamit mën naa wax ni que ñoo yam même génération yaangi nek ci Thiès tu es un homme social euh, un homme intègre donc lepp lo xamanteni ni rek luy suqali Thiès la wala soit luy jëmale population bi kanam yaangi ci dox ñu mel non nak bu leen amé dañ leen di def li nga xamanteni mom moy idole idole euh, def leen aussi tamit suñu référence euh, di porter suñu ay choix ci ñom en tant que repère parce que vraiment dañ la wëra a même bu fekkee ni que lu bax li ngay def bëgguloo sax nit ñi diko xam wala soit ngay génne ci tele télé et tout et tout parce que bari na ci ño xamante bu caméra takul rek duñu mëna def social yow bokku lo ci genre yoyu donc mom motax suñu euh, sunu nyu ñuy amal ñu fassiyene la def li nga xamante mom moy suñu sunu d'honneur ande ak yow guddigi lepp lo loo ni loy def ci lu bax la ñu won ko jeunesse bi euh, pour ñi nga xamante dañuy bëgg def social xamuñu fu ñuy wala fu ñuy ñu xamni ne wax jaangi ni ba defé na ni repère dotul euh, dotu fi loolu moom mo waral sunu tanki tay euh, di gëna amat contentement euh, di gëna a férdali aussi tamit li nga xamanteni moy décision bi ñu amone ak engagement bi di wax ni bu yoon jeexul wax su du jeex fa ñu nekkoon démb ak barki demb ñu ngi fi di wax nak ci turu li nga xamanteni mom moy NG Avance di wat sunu contentement ak tamit sunu engagement yu ñu am fas yéene ko jëmele ci yow ci sunu guddigu goog nga xamanteni mom moom and ak jërëjëf. santé ko sunu wëjur bu goor Serigne Macky dama koy wax à chaque fois rek Thiès je pèse bien mes mots tel est waxee te day génn amul ben autorité bu nekk Thiès bu ni mës naa toog ak moom nii bureau ku président El Bachir Gay ak qui am te ne mooy Habib Kane loolu il y a ni yàgg quoi koy wax ñëpp xam nañ ko ci man ñaar ñooñu laa gis ni tey su ma accompagner ay nit bokk nañ si ñi nga xam ñoo accompagner man NG personnellement parce que man li may wax à chaque fois rek. Euh, euh, def fu dara nekkul loolu daf maa neex man yàllaa ma bindee noonu ma am na capacité boo xam te ne su ma neexoon dem si leneen mais nekk Thiès di jéem a forger di jéem a créer des personnes yoo xam te ne ëllëg dañuy nekk ay référence man loolu moo ma neex te doole ji amu ko gis nga muy ñëw Jakarta laa jël kon am na nekk si ginnaaw NG ñu nekk si ginnaaw NG du kenn ku dul euh, le président El Bachir Gueye mu mu nekk nu ko Abdou waxee rek man loolu laa gëm man dama compliqué parce que euh, boo may jox 100 francs sax ni ma euh, euh, am sax dam naa la bëgguma dafa am noo ma koy joxee moo tax man lu bari lu kenn ma gis si lenn ñu koy sant kon nag lu ma nit sant lu nekk rek Thiès ñu bari koo wax télé yi nekk Thiès yëpp médias yi nekk Thiès yëpp production yi nekk Thiès yëpp ko wax danaan NG NG NG te loolu yëpp ce sont des personnes ñoo ñu bëgg a yàgg <laughs> yaakaar naa léegi ñu def daanaka 5 ans maag maag président wala wala 4 ans te boobu ba léegi day metti mais fu sama bët xonkee su ma ko woowee mu jàpp ci ak ki nga xam tamit mooy comment dirais sama frère tamit muy. Habib kan voilà mais nag rawatina moom mi toog lu mu toog moo tax man kenn moo ma du ma waxal nit lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu deful kon ñu koy sant président di ñaanal yàlla yokk bu baax doole ji gis nañ la yàgg nañ la accompagner yàgg na gis nga peut-être sax que euh, lim don yi mi daan def si femme avant loolu la woon tabaski ama tabaski yi mu daan woo may ñëw ngay may ay xar boobu daanaka daana ko sa fësal euh, fekk am na sama benn ku daan liggéeyee ci man ku ma daan boole ak yow bi ma njëkkee dégg El Bachir El Bachir mu dixième laa ko mais bi ma ñëwee kon loolu yàgg na boobu sax nit ñi jàpp jàpp naa ni dafa doon def dafa doon def si suuf si wàllu social. kon bu ñu gisee nit ñu mel noonu yoon la ñu ñu ñu fësal leen bien vrai que bëggu ko man leer na ma ni parrainage bi da koo nangu ngir man mais gëj naa nangu yi man loolu leer na ma nañ ñi xam naa ko xam naa ko bu baax a baax lu tax nag ma ne ko président dama la koy jox parce que gis na damay bëgg nit ñi di gis. parce que nit ñi yàlla def na ni bëgg nañu Sen 24 TV bëgg nañu groupe N J Family te man am naa benn responsabilité boo xam te ni yàlla may na ma ko bien vrai que ay ndongo daara la ñu mbooloom topp sama ginnaaw mais dañuy gis ay person yoo xam te ni duñ la wax luñ dul def ñun xam nañu ñu chaque fois di réunion dama leen koy wax dama si nit ki nga xam te ni gëm na la que ngay dem koo xam te ni da lay wax ay promesses yoo xamante ni da lay tas sa yaakaar tey genre mel nii yaakaar bi ñu dalee liggéey ba léegi jàpp na si Sen 24 TV tey am na lu loo xamante ni moom mi moo ñu si dimbali si jamono bu muy metti kon nag euh, président ñu la koy santé di la ko di la ko di ñaanal yàlla yokk wërsëg bi euh, ni ko kii waxee rek cees mu Thiès Thiès ñoo xamul seen nit cees moo naqaree liggéey mais bu ñëpp jugee Thiès kan moo fiy des kenn du fi des kon faa ñu toog muy metti ku mën ni yéen ku mën ni ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen moo tax sunu bés bi ñun amuñu dul événement ñu événementiel si la ñuy liggéey événementiel mooy sunu liggéey parfois ñoom ñenn ñi adhéré ci man bu dee Abdou xam na ma ñeneen ñi parfois dañuy am compli dañuy am problème parce que duñu comprendre samay principe NG yow benn événement nga tuddee ko benn nit defal ni defal naa man leen gis ngeen man wallaahi du ma tuddee ku ma xamul musuma tuddee événement comme ku ma ku ku ma xamul te nit bu ma la xamee daa am lu may roy ci yow moo tax may tuddal événement parce que tey Thiès bu yàqoo man la ko koy yàqal du man sama maam Alaaji Ahmad Boro Njigéen bokk na ci ñu ko sanc kon bu yàqoo man la koy yàqal su ma gisee benn ku mën ni man ku doyee di ku ma ni man ma fësal ko ni ñu yaakaar ni kii la boobaa bokk naa ci ñu ko yàq moi à chaque fois c'est pas la première fois que nous nangul suñu prénage kon xam ni nous toujours que am nañu nous toujours bu ñëwee rek nga wan nañu ñu say frère lañu wan nañu ñu man en tant que un leader bi nga bëgg mais ngir dara la message appel jeunesse bi jeunesse, jeunesse bi avenir du du ay rëng-rëng na ku nekk gëm xool ay nit yoo xamante ni ay référence lañu ay nit ñoo xamante ni yaakaar nañ ni ñii amuñu benn responsabilité amuñu benn ndomba tànk si dëkk bi ba pare ñoo ngi jëriñ dëkk bi ñooñu la ñu soxla mais pas ñi nga xamante ni ñooy jël suñuy impôt suñu yaay yi suñu impôt suñu papa yi ñu koy lekk te boo leen soxlaa duñ la ñëwal duñ la teewal duñ la accompagner nañu yeewu ci loolu nañu suñu suñu suñuy carte suñuy temps suñuy suñuy comment dirais suñu yitte nañ koy jox ñi ko mérito te ñu bañ a nekk ay riirandoo message bi loolu la di remercier tamit sa staff bi parce que li ñu naan buur buur buur bu demee mën leen rek ñu ko ñu ko entouré la ku mën nii la président euh, waaw man sama président la président euh, waaw bu kii nu mu sax bu AIC kii bi sampaate muy muy muy muy muy Bachir nekk te ne heure bu ñu waxtaanee ñooñu waxtaan si luy jëmale kanam audit voilà du ko remercier bu baax di remercier mu ni ko Abdou waxee parce que moom tamit moo ñu yombale lépp ak sama goro bi nga xamante ne moom tamit fu ma gis daf may encouragé ak taalibe Baye mi nga xamante ne moom bu ñu xamante maa moom yàgg na ça fait plus de 10 ans kon nag suñu kër la di la ñaanal président encore une ba ngi nii xam na ngi dañu ko acceptel kon nag ñu lay ñaanal yàlla gën la kattanan di la wax dénkaat rek suñu bopp aussi ay ndaw lañu amul kenn ku ci yor benn responsabilité ñoo xam te ne dañuy xëy matin au soir di daaba daaba pour am 10 mille 5 000 yu ñu denc yaa ngi ñuy accompagner bu baax a baax a baax di la xamal ni sañ njaboot lañu ñu ngi lay gën a dénkaat suñu bopp li may wax rek ci média laay waxee voilà loo soxla yow boo ñu woowee ñun dañuy teew par force la bor boo ñu lebal la te sama papa da naan ma euh, bor boo mënul fay bu mu ñàkk jëm sëñ bi ba amee juróom dërëm yóbbul rek mais bul ni mën maa fay rek damay toog nañu accompagnement yi gis gis nañu encouragement yi heure bu ma la wooyee téléphone da nga dëgg may ni ma appelé je te je te rappelle te a jàppee wax naa la ko waxati ko waxati ko ñëw ñun yor sa loxo lekk di ñu tegal loolu nit ku la ragal nit ku la lii doo doo ko doo ko defal kon nag encore une fois yàlla na la yàlla dooleel ñaanal la ba sa mouvement bi yene bi nga am ci jeunesse bi li nga def ci famille ak li yene bi nga am ci jeunesse bi yalla mottali ko du du du yomb nak mais nak dagg bu dëkk bu xëcc bu xëcc daggul dina dëkk xawma mais ñun moom groupe NJ Family ak képp ko xamanteni ni yaa ngi groupe NJ Family on est derrière vous et on vous accompagne et on vous encourage aussi et di leur am contentement tamit si parrainage bi nga xamanteni chaque fois nga accepté ñuko voilà di la remercier bu baax di remercier toute l'équipe de wa mouvement audit je pense que voilà ah fàttewu dara ah. voilà salam alaikum. Nous sommes euh, waa mouvement audit Nous euh, di nuyu aussi président di ko remercier bu baax baax ci soutien bu nga xamante ne nii defal na ko groupe NG Family plus particulièrement NG Events euh, bi nga maintenu ni ci événementiel vraiment ñing lay remercier bu baax baax di kontaan aussi ci euh, soutien bi ak dalal bi ñu dalal euh hésité wuñu ben yoon pour ñëw si parce que xamone nañ ni suñu fi ñëwé aussi euh, doo ñu gàcceel en plus do tass suñu yaakar mm. vraiment ñing lay remercier waat di la ñaanal bu baax baax euh, li nga xamante ni nii jàppalee nga ñu ko balaa yàgg yàlla na la yàlla jox lu ko ëpp ci barke Cheikhul Khadim ñing lay kontaane bu baax baax di la remercier waat encore une fois euh vraiment di sante yalla bu baax baax ñu may ñëpp ñu fekkee bés bi je crois que la dernière fois que nous dajante NG, avec NJ ñuy wax affaire lui. il y a de cela un mois voilà même plus donc il y a un donc malheureusement nous mu tombés une période période difficile pour le pays Nous avons période manifestation donc nous avons eu des mort donc

donc ñooñu bu dëkk bi amee problème rek fu ñu jëm ñoo ko seen njaboot donc il faut ñu xalaat ñooñu donc tout le temps message boobu laay fàttali politiciens yi que nii politiciens yi moo moomuñu dëkk bi dañ ko si ko bokk ay nit donc nañuy sóor nit ñi donc ndax lii fi xew nii yëpp lu mënoon na ñàkk la des donc l'autre chose moom mooy comme ni ma ko waxee bu ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen aljana ñu ñaan yalla fi nga xamni moy Sénégal nga xamni dëkk bi nga xamni ñëpp ñoko bok yalla na fi yalla def jamm yalla na fi yalla def sutura yalla na yalla ubbi xol yi yaatal ko ba jamm dellu ci fi bi jaay si wujur donc l'autre chose moy comme niñ ko waxé d'habitude chaque fois ni ma koy waxé euh entreprise bi nga xamni moy mooy Family nga xamni ne bi moko jité c'est une entreprise bi nga xamni man daf ma marqué wax na ko parce que NJ comme niñ ko waxé sànq on s'est connu avant bien avant le mouvement audit

waaw alors que tey énergie deful social entreprise la taxawal petite wala PME petite moyenne entreprise la taxawal avec de condition très difficile mu ànd ak ay jeunes di leen coacher ñuy liggéey ànd di liggéey di ci suturlawu ba tey yàlla def ñu egsi donc dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla xeeb dool ñu dem ba tey jii ñi muy ni àndal ñëpp di am salaire ah liggéey bi di gën a di gën a jaar yoon donc wax naa ko man désormais samay parrainage c'est dama koy ciblé Je vais le faire n'importe où je vais le faire n'importe comment donc comme nous avons ko choix envers sa personne c'est parce qu'il me l'a prouvé il me l'a montré à plusieurs reprises c'est un homme digne c'est un homme intègre c'est un homme digne de confiance donc je que je ma partenariat avec Mom, avec NG Family vais continuer pour toujours inshallah. donc euh, moi je ci comme comme nous ma ko l'événement événement fi ñu jëm nii ak tey problème yi am Sénégal donc bëgguma guddal trop kàddu gi mais ma def juste une brève synthèse peut-être en français pour suñu xarit yi nga xam ne dañuy Facebook et YouTube je vais essayer de faire un résumé boo concis précis pour que nous puissions a message mais encore une fois avant de koy def j'aimerais me féliciter encore une fois et le groupe NJ Family vous avez notre soutien euh, pour toujours donc les plus xamante soutien indéfectible Les hein, lépp lu mu mënti vous la faites nous sommes partants Hein? donc di félicité aussi soxna si Amina mi nga xam ne parce que xaw on noonu sax musicien là, xamu noonu sax day woy quoi donc donc c'est un groupe bi vraiment c'est un groupe complet te loolu c'est à féliciter tey ji loolu lañu soxla Sénégal dañu soxla ay jeunes entrepreneurs yoo vraiment, ni vraiment tooguñu di au tooguñu di xoole donc nous ñu aussi di xaar petits ci gouvernement parce que les petits gouvernement ne peuvent pas ko mais des jeunes entrepreneurs ils ont des dañuy jóg di donc il faut voir que pour ni da nga ni tu es un politique social ou agent de développement ngay les jeunes yoyu, ñu bañ a limiter rek ce wax ci ay discours parce que c'est ji loolu moo fi bari discours discours discours donc je pense au-delà des discours bi ñuy def contribuer solidairement de façon solidaire ci ñi nga xam te ne ñooy les jeunes ñi nga xam dañoo mel ni comme groupe NG ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment liggéey moo leen tax a jóg créer entreprise moo leen tax a jóg ñu jàppale leen pour le bien-être de nos populations mais aussi pour la réduction du taux de chômage bi nga xamante ni il frappe durement à nos jeunes donc loolu noonu laa ci bëggoon dolli di ñaan événement bi yàlla na ko yàlla def ci jàmm ak salaam donc Sénégal yàlla na fi jàmm déjà ñëw événement bi aussi mën a am ci jàmm ak salaam lépp loo xam te ne ay attentes yu ngeen ciy xaar yàlla na ko def donc def en français pour Facebook bi YouTube euh, Mesdames, Messieurs, avant de commencer, permettez-moi de prendre un moment pour reconnaître la tension qui marque notre époque actuelle, aggravée par les événements tragiques qui ont vu la perte de vue durant les manifestations récentes suite à la condamnation de M. Sonko. Je voudrais exprimer ma profonde sympathie et une pensée pieuse pour ceux qui ont perdu leur vie, prions ensemble pour le repos de leurs âmes et pour la paix dans notre cher Sénégal. Allahouma nass'aloukeima an ismekel hannan, usmekel mannan, an tagfir li'oulaikal zina faqadu hayadhim fil ihtijajat, an tagja'ala kouboruhum ra'udatan miryad li jannah, Allahouma alhim ahloumous wa salwan, an ala kouloumous sakina wa raha. Donc c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président du mouvement Audit pour apporter notre soutien à l'entreprise NG Family. Permettez-moi de saluer tout particulièrement le président NG, un entrepreneur de valeur qui a su faire preuve de résilience et de détermination face aux défis de notre temps. Nous sommes ici pour manifester notre solidarité et notre engagement envers l'entrepreneuriat, un pilier essentiel de notre économie et de notre société. Dans un monde en constante évolution, il est primordial de soutenir nos petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de notre croissance et le cœur battant de nos communautés. Je suis donc très fier de remettre une enveloppe de 500 000 francs CFA à NJ Family. C'est un geste symbolique mais significatif qui témoigne de notre volonté de voir ces entreprises prospérer pour le bien-être de nos populations et pour la réduction du taux de chômage qui frappe durement nos jeunes. Il est crucial de nous rappeler que notre rôle en tant que personnalité politique et sociale et agent de développement ne se limite pas à des discours, nous avons le devoir autant que possible d'agir concrètement pour aider nos PME à se développer, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés et enclavés de nos villes. Tournons-nous maintenant vers l'actualité politique de notre cher Sénégal. Il est indéniable que les tensions sont vives, et ce, des deux côtés du pouvoir. Il est donc de notre devoir, en tant que citoyens, de respecter le calendrier électoral et les droits de chacun. À huit mois des élections, l'heure est à l'apaisement. Il est plus que jamais nécessaire d'instaurer un climat de paix et de stabilité, car c'est la seule chose qui permettra à nos compatriotes, en particulier aux pères de famille, majoritairement débrouillards, de vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille en toute tranquillité et quiétude. En conclusion, je souhaite réaffirmer notre soutien indéfectible à l'entrepreneuriat, puis à une famille. Nous continuerons à œuvrer pour une société plus juste et plus solidaire, où chacun a la possibilité de réaliser ses rêves. Ensemble, nous pouvons, construire un Sénégal prospère et en paix, où chacun a sa place. Je vous remercie.